alors Edmond nous ngi lay Je maa ngi leen di fay édition Sénégal organisé l'idée di Affirma noo Nous sommes Je rek dama ko télé de. sommes sama ko niveau parce que l'Afrique, sommes ñuy instant Sénégal c'est sas la sas waaw ñun musique Nous la ñu Nous sommes niveau lii bu Nous Sénégal ñun Nous sommes a niveau loolu rek la artistes yi war nañu wane niveau mais tamit public bi tamit si lañ mu gis mu mel ni Sénégal fu mu toll nii public bi koy xool ay Ivoiriens ngay gis. waaw ay Béninois. waaw public Sénégal ba parce que ñoom ñoo gën a en euh, fait kaay la lii lii li international ku ci nekk sa sa sa sa mooy moo le représenté ci àdduna bi ci Afrique en tout cas ñi ñu ñi ñu nar a nominé ñi nara a ñëw ñi nar a yëngal ñi nga xam ne ñoo yëngal année bi ci Afrique boo seetloo c'est beaucoup plus les les euh, les autres. Sénégal lañ ko organisé comme campagne bi ñun sénégalais yi ñun lañu waral waroon jox les artistes surtout ñi ñu nominé booster artistes yooyu noonu ba nga xamante ne si Sénégal yëpp nañu xam ne ah Jeeba euh, Wally Seck Sidi Diop euh, Viviane ñoom ñëpp dañ leen nominé et ñu ñëw en masse supporter loolu noonu ñëpp from tey ba dimanche. mais la ma waral échec boobu noonu. parce que non man du échec ah pour man niveau la rek ci waa Sénégal li ñu dese dafa bëri ci liggéey dañoo war a liggéey. li day day ci Afrique l'a lay niveau c'est quoi le Quack est-ce mbalax bi la wala. du mbalax du rap musique là. musique là. Sénégal Afrique dafa toll ci niveau nañu musique yoy ñu niveau ba ñu imposer musique c'est l'afrobeat C'est aduna bi di def sama lu awar yi gën mag afrobeat moo koy gagné. mais problème la nan parce que gis mbir benn bis ñu ñu posé kii di walé Seck mu le problème c'est pas que maanaam afrobeat wala mbalax mais population parce que Nigeria mo ñu ëpp éducation éducation musicale dafa am solo suñu public il faut ñu jàngal leen faut ñu xamal leen ba yan yan musique la wara mettre en avant la wara war tout ça dafa am solo ñun ñoko mom c'est notre musique il faut qu'on sache une chose gis nga lii li ñu nek def ni Euh, population Nigéria dëgg la dañoo ngand loolu yëpp dëgg la je suis d'accord avec Wally Seck li mu wax tu vois mais euh, am na ay dëkk yoo xamante ne si tamit seen public taxaw ngaa ngand noonu tu vois mais teewul ñu ngi def ay affaire yu nice tu vois donc nañu rangé wu rek nañu rangé wu andi niveau ba pare comprendre que ni am na ñu nekk suñu kanam ñu xool ñooñu ñi ñuy def tu vois collaboration yi nay am il faut gars yi comprendre ni musique partage la ñun ñoo ko moom et tant que defuñu loolu noonu. dina compliqué pour ñu egg fu sori. moom nag fu mu kon Edmond. ah si afrobeat bi Edmond. man maa ngi ci bu yàgg man man maa njëkk a def afrobeat Sénégal boo koy def yàgg na man ay musique yi ma yi ma def ñu ma ñu ma sañ a def Sénégal bëriwul. léegi la gars di commencé def affaire yi man def naa ko bu yàgg moo tax léegi dama leen sédan dama leen sédan ak ñuy que amatul lu may prouvé ci musicalité def naa ko bu yàgg man man sama yaay congolaise la Zambie laa juddoo xam naa racines yooyu bu yàgg def naa ko bu yàgg du

ci lañu gisante ak ñoon ay ñom Davido ak ñoon ñoon ñep on était là-bas on a vu ce qui se passe là-bas xam nañ li fi nek bañ demee bañu woyee dañ ñëw ne est-ce que ay sénégalais lén parce que xam nañ ni niveau baay fofu non ñom nigérien ñoo ñu doon laaj est-ce que ñun ay sénégalais lañ tu vois ce que je veux dire parce que gis nañ ni gaay niveau lañ fi andi et moy li ma lay expliquer dañ baay euh, tapalé bi té def niveau Sénégal benen niveau la wara a toll Coupe d'Afrique dañ ko jël aduna bi yëpp daf ñuy xol donc bu ñuy xol nañ leen jox niveau ta baay caaxaan bi musique du ay foode musique liggéey la business la xaalis bu bari lay dugal si dëkk donc nañ ko def nañ xam ne job la te yi def si def ci money mu xam ne business la yee. kon am na Sénégal yu def ak Davido mais Babou Pires def na def son ak Davido te léegi mu génn incha allah na gars yi déglu rek affaire yaa ngi fi. nekk si jàmm. ne février ne mois nga xamante ne mooy ñuy bëggante ndax nga tey ji loo leen di ma gueule chaque jour là koy dundou man mais mais na tey ñu lay peut-être bien peut-être bien en tout cas xaar len rek. alors Fata ñu ngi lay nuyu. ñu delo delloo ziar. noo gisee 8e édition Sénégal organisé ko. bon dañuy dañuy sant yalla fekke ko rek euh ñaan yalla fekke waat ay affaire yu bëri yu melni quoi donc je pense que euh, le Sénégal le Sénégal s'en est pris un peu en retard en fait. Ah, un événement comme ça devrait être connu par le grand public, comprendre quoi, et des artistes aussi pour que nous puissions avoir un impact sur dëkk qui balaa ñuy dem quoi donc je pense que il se passe Fima au Sénégal mais les gens sont pas au courant et que c'est c'est dommage. population la plupart boo xool fii Séné Gabonais nga fii Ivoiriens alors au Sénégal est-ce que dafa mel ni Sénégal amul ay mélomane looloo tax Sénégal nuyu Sénégal jéggiwul frontière. non mais il y a deux aspects Ben, oui, moi mooy euh, euh, le gouvernement sénégalais bi nga xamanteni ñom ñoo recevoir AFRIMA ñom ñoo waron téla feussel acteur acteurs culturels xamanteni ñom ñoo leen di accompagner comme ça promotion bi dina mëna local ba sénégalais yi sentir ci seen comme comprendre mais lolu ils n'ont pas fait affaire bi jël temps bu yag sénégalais mënu ko approprier après, c'est vraiment c'est malheureux. C'est la communication qui manque. C'est la communication là, Bah parler aussi euh, gis nga Sénégalais aussi dañu est en retard au bas de l'échelle si si a entertainment l'industrie musicale tu vois un truc comme ça tu l'organises dans ben endroit tu verras autre chose mais c'est juste parce que ce qu'il faut revoir c'est que notre rapport avec le grand public les artistes et le grand public on ne pas je pense pas que les Sénégalais nuisent considérer votre artiste du place bi mu comprendre et je pense que c'est dommage en fait on a perdu un truc qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore revenu. C'est quoi le problème Non, le problème c'est un problème euh, d'habitude. Les, artistes sénégalais, en tout cas les artistes urbains, ils ont habitué aux Sénégalais comme quoi que artistes musique sur là tout entertainment soxlaatul euh, soxlaatuñu xaalis soxlawuñu dara ñu noonu yekk fii rek pour la musique ni. Les sénégalais yi léegi rien de tu vois, ils n'achètent plus. Les Sénégalais, ils vont plus dans les concerts pour soutenir. Ils n'ont plus cette, culture d'achat et d'aller au concert maintenant qui, qui... Donc c'est dommage pour le, Sénégalais. Est-ce que tu m'écoutes c'est le le problème c'est le rien à voir avec le aujourd'hui les Sénégalais les générations, ils veulent qu'ils ont nga talent yi am ay booy yi le limal ay Deep, Brick ils sont nombreux les jeunes talents aujourd'hui il faut pas du mbalax.

mais j'ai sorti un album il y a pas longtemps nag gars yi dañ dem cliquer ko quoi mi ngi tudd Global Citizen mi ngi ci sama nag sama album génnewu ma ko ci YouTube sama album nekkul YouTube pour nit ñi sànni quoi kenn mënu ko télécharger noonu vraiment man damay nekk ci plateforme yi rek grawul suuf bi amul problème. alors gisoon na la nga def benn featuring ak benn artiste bu nekk États-Unis Baaw moom fu mu toll nii moom Sénégal est-ce que mën ngeen defar benn featuring.